alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyi rahma wa kaasifi lgumma wa shafii lumma wa ala alihi wa sahabatihi aimma wa man tabiahum bi ixsaani ila yawmi alqiyama mbokku jullit yu tedd yi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 di ko ñaan rëcci-rëcci yu ñu yëg ak yu ñu yëgut yu ñu tey ak yu ñu teyut yal na nu boole labal ci géeju njëgalam gu yaatu gi di ko ñaan lu ñu sonna jaamu mu néew mu bari yal na ñu ko boole nangul ca matam ga ak mbaaxam ga na mu toll bi jaahi seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu del si waat ak ca kartanal yàlla ci seen émission albayaan ngeen si ànd ak seen mbokk seen soppe seen xarit Mouhamed Tayib Cissé tey nag ñu dikk ak yéen ci seen waajaayu gàmmu mu mel ni fa tabarakallahu weer wu bari ngëneel lañuy ñuy séenu weer wu bëri yiw weer wu bari teraanga weer wu yëkkatiku waaye weer wu màgg fa yàlla mu mel ni képp ku am lu mel ni pepp suuf ci sa biir xol ci ak ngëm yàlla bu weer wi teeroo dangay ngay yëg ci sa xol ak kontante da ngay yëg ci say cër ay sawarte dangay ngay yëgit tawfiix ci sa dund kon fa tabaarakallaahu lu waay gàtt-gàtt dégg-dégg lu waay gàtt-gàtt xaliwoo xam na ne màggal guddik sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu war la te lu jaadu la mu mal ni weer la woo xam ne nag bu xasee teew dafa am ci ñoo xam ne dafa am ay feebar yu doon nelaw ci ñoom mais day yeewu mu ñoo xam ne na ma yàlla baal te ma mais mënoo leen mënoo leen a mënoo leen a waxal dara loo xamante ne daal mënoo wax ne dañoo ñàkk xam-xam mënoo wax nit ñi danoo dof mënoo wax nit ñi danoo wirut jullit nan la mën a taxawee di weddi ne guddik yonent yàlla Muhammad bi mu ganee àdduna dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko araamal wala du sunna wala bidaa la pour màggal ko subhanallahi alazim kooku kooku war na mën a xoolaat boppam am na feebar bu nekk ci biir xoolam am na feebar bu nekk ci biir xoolam su fekkente ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tiim fi yëpp mu ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ku gën ci yéen mooy ku jàng alquran ba pare wëlbati ko di ko jàngale sigam alquran nga jàng gën ci lu yàlla bind waa ki ñu wàccee ci moom alquran nag kooku jëmmu jooju ñu ne dañ koy tàntal benn guddi ngir teral ko ngir xitmal ko ca ngir waxtaanee ay jikkoom nit ñu xam ko jëfe ko te jikkoo jikkoy sang bi ñu ne loolu dafa aram bu loolu daganut lan mooy dagan waaye toog fii sax di indi ay xadis ak ay aaya ak ay dalil ngir dëggal ne gàmmu dafa dagan sax ñun amuñ temps boobu temps boobu amuñu ko wax dëgg yàlla ñun dal gëm nañ ne gàmmu dafa war dafa jaado te dafa war a nekk suñu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu yàlla wërsëgal ñu nekk fii ci Sénégal kenn ku ci nekk sa ndam ak sa tiitar ak sa teraanga ma yént yàlla Muhammad kenn ku ci nekk yëgal na boppam ne guddi gi lu ñu war a màggal la am na ci guddi goo xam ne boo ca góorgóorloo ba sa mbir ba ba jagal ca dara yàlla dana la dana ca jagalee say mbir am na ci mbir moo guddi goo xam ne boo ca profitoo ci ci la sa mbir yëpp di baaxee zahiran wa batinan moo tax Seydil Hajji Malik si radiallahu anhu dafa wax mu ni allah azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun nawal xaraami udulu maa ngi leen di dénk yéen ñi yëg kaay ma xamal leen ñi yëgul sax kaay ma wax leen dama ne nañu bokk ñun ñëpp àndandoor màggal guddi gu yonent yàlla Muhammad gane àdduna waaye ci sarto nag Maodo ne ne ci condition mooy lan ida lam yakuni nahwal xaraami adulu Maodo ne li fa yàlla di daga li fa yàlla di xaraamal yonent yàlla Muhammad araamal ko nañ fexe ba moo am ci guddi gi kon foofu nga dégg tey fa ne yàlla tax a jug am na ñu raas déem tax a jug muy ga màggalu tuubaak muy gàmmu tiwaawoon muy ziyaare njaay muy bu canabaak muy feneen barab bu mën a doon rek ñii yàlla tax a jug daal ñoom yàlla tax na leen a jóg mais am na ci ñoo xam ne uniquement race déema leen tax a jug moo tax Seydil Hajji Malik radiyallahu laalu daan faral di wax mu ne nañ leen màggal guddi ga waaye su fekkente ne njàmbaa suñ ci lu xaraam iza lam yakuni nahwal xaraami udulu kon nañu wëttandiku xoolaat colin yi xoolaat doxalin yi xoolaat comportement yi yi nga xamante ne fa tabarakallahu yàlla bëggul yenent bi bëggul nañ fexe ba zuuru gàmmu ga buñ ko yëbbu tiwaawoon kon loolu ñu ngi ci oo mboolem jullit di ko dénk mbooleem jullit ndax am na ci guddi goo xam ne boo góorgóorloo yàlla nangul la sa sa lépp jàkk waaye am na ci góor guddi goo xam ne boo ñàkkee fulla wala ñàkk fayda ba def ci lu defuwut fa la la yàlla di jaare jéppi la nañu fexe ba bu ñu yàlla di jéppi ci guddi yent yàlla muhammad ku ci mel ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom bu weer wi tiruwaan da daan da daan boppam hani an li ibrahima allaha xilaaluhu xilaalun badali nadirina jamaaluhu moom bàyyi ñes radiallahu anhu weer wi bu ñëwee dadaan daan ndokkeel boppam parce que lu tax mooy cofeel gu mu amoon ci yénti yàlla muhammad ak ñàkk gi mu ñàkk sagu ci yenent bi moom dem na sax ba jël mbir mi moomale ko boppam ngir bëgg yénti yàlla muhammad kon su ko defee ñu mel ni ñu ñooñu bu ñu ko amee ñuy suñu wërsëg muy suñu sens muy suñu sakk ñuy suñu tiitar nañ xamaat bu baax lu ñu yàlla jagleel téyewaat leen fonkuwaat leen te guddi gi ñu fexe see rey sunu bopp ndax euh, màggal ga bëriwaan teraanga yi la ca yàlla di defal yum la dul defal ci yeneen guddi Seydil Hajji Malik ne wa mawliduhu bihi sharafun wa gayrun fi taazimi in jahu sujuni nee nag màggal guddi gint yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ganee aduna nee na yiiwa ca teraanga mu ngi ca dooleeku mu ngi ca yëkkatiku mu ngi ca jéggalug bàkkaar mu ngi ca li ca nekk kenn xamunum toll su ko defee fa tabaarakallaahu nañ leen góor góorlu ci guddi ga fa tabaarakallaahu ñu gëm rekk ne lépp loo xamante ne teraangala la ju yàlla subhanahu wa taala bind lenn la ca yàlla jël teraale ko ba fa muyint yàlla muhammad ki gënal yàlla te gën ñëpp wa maa xalaqa arxamaanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmudi wa huwa alxabibu yàlla li mu bind ba mu ca noppee lenn la tànn teralee ko boppam mu yënt yàlla muhammad moo tax ku bëgg sa digganteeg sa borom jag fexe la jël yënt yàlla muhammad muy sa teraanga li yàlla bindi lépp lu mu ca jël terale ko boppam mooy yënanti bi ku bëgg nag sa digganteeg sa borom ratax wala mu jag wala mu baax fexe la jël yënt yàlla muhammad muy sa teraanga kon nag fa tabaarakallaahu mag ña fa la ñu jàpp fa la ñu mooy ba xam leen war ci seen diggante ginti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam cheikhul xadim bu demee bay tuddee boppam xadimu rasul dem ba ne moom mooy mbindaanu yenent yàlla muhammad moom de xam na xam na yenent bi mooy kan xam na dayoo bu ko yàlla jox xam na gëdd bu ko yàlla jox xam na fa yàlla teg yenent yàlla muhammad ñi xamul nag ñoo xamut ñi xamul ñoo xamul di wax naka sudul noonu waaye Cheikhul Khadim moom xam na li li ki yënt yàlla Muhammad xam na fi ko yàlla teg mu teg ko fa xam na cër bi ka yàlla jox mu jox ko ko ba tuddee boppam ne ko annal annal xadimu antal karimu antal karimu annal xadimu yow yaay ko tedd ki yaay ko yëkkatiku ki waaye man maay mindaan bi ci sa ron di la liggéeyal kon su ko defee yëpp ay mbir la yoo xamante ne benn bu ci nekk boo ca jëlee mën nga caa jàngatee ne fa tabarakallahu suñu mag ñi daal ay jàmbaar lañu ay ndaanaan lañu li jëm nag ci màggal guddi gi Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul donte ne ñëpp àddu nañ ci ñëpp wax nañu ci waaye ay lend lañ dindi ci ay waxam rek bëgg ko nafarlanti Cheikh Ahmadou Bamba dafa wax ni mawliduhu muazzamun mubarakun muhtaramun taazimuhu yanxatimu ala dawi taqaddumi nee na guddi gu yonent Yàlla Muhammad ganee àdduna daal guddi gu màgg la guddi gu yonent yàlla Muhammad gane àdduna guddi gu barkeel la nee na màggal ko sax dana tax yàlla subhanahu wa taala def la nga bokk ci ñu gën su ko defee loolee ñu bàyyi ko xel bu baax si Amadou Bamba nee na taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bihi diyaadi minnati li muxlisin muazimi nee na màggal guddi gu yonent yàlla Muhammad gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam nee na sax dafa nekk sunna waa kon ñi taxaw naan kat lii du sunna bidaa la ñooñee war na noo xoolaat seen aliwu li gën a yées nag ci pénc mooy yàlla defalul la tawfiq ci sa aliwa bënn nga taxaw di jàmmaarloog ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu yàlla defal na leen tawfiq moo tax ku dàgg santeeg ñoom wala kuy weranteeg ñoom ci xam-xam yaa ngi tooñ sa bopp parce que yow mi xam bul bul bul bul bul suufeel sa bopp ci kanamu ko xamut parce que li ngay sonn di ko indi ci ay dalil ci ay tegtal ci ay argument ñoom day dépassé seen niveau kon boo demee bay wax waxal ak ko xam kon amuñu temps par exemple di indi ay hadis wala di indi ay ayat di indi ay dalil yoo xam ne day tegtale ne gàmmu sunna la déedéet suñu mag ñi yàlla war wërsëgal ñu ñoom ñu dem ba bind ba fi dem ba sonn lool ci seen diggante yàlla Muhammad ba li leen yàlla may tey ci teraanga yàlla ngi leen ko maye ci barkinte yàlla Muhammad kon ñun ñun ñooñu rek doy nañu référence ñooñu rek la ñuy déglu ñooñu la ñuy xool ñoom la ñuy topp toppuñu keneen ku dul ñoom suñu mag ñu baax ñi lan lu topp kudul ñoom toppuñu la ñoom la ñu gëm ku dul ñoom gëmuñu la ñoom la ñu wóolu yaakaar leen ku dul ñoom gëmuñu la yaakaaruñu parce que lu tax dañoo fexe ba nandal ñu mahabata rasul muy def ci ñun bëgg yint yàlla muhammad kon su ko defee loolu ku la ko defal amuloo payam moo si Amadou Bamba nee na màggal daal guddi yonent yàlla Muhammad sunna la ta màggal ko dana la dana la dana la jëlee ci maratib yu suufe yi yóbbu la ci maratib yu kawe yi te màggal guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane aduna da nga jëlee ay may ay ay koom ay teraanga nee na màggal ko sax yàlla dana la ca sellalee dana la ca teralee dana la ca yëkkati kon su ko defee lii nii ñu bind ko. muy waxu Cheikh Ahmadou Bamba mu ne dàng ne fàng ñëpp di ko gis ndax nit mën naa indi leneen lu gën a màgg lii tegal ñu ko ci suñ kanam déedéet wala leneen lu gën a pire lii indi ñu ko tegal ñu ko ñu koy yër wala di ko di ko ko gëm déedéet déedéet doy nañu sëkk ak barke. ak ñeneen ñu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ku ci mal ni Cheikh Aji Malick ku mel Ibrahima ku ci mel ni Cheikh Saadou Abiy ku ci mel ni mu ngoog mu ngoog mu boo limee rek da ngay juum kenn ku ci nekk lim ciy wax ci teelu Muhammad kenn xam nu mu toll ci guddi gi Cheikh ma ni fa mun yuazima mawlida nabiyina babil huda fala yuhasibu gada faxtari man wa azimi nee na ko màggal guddi gu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna nee na kooku keroog yowmal xiyaam yàlla du ko xisaab mooy duñu réglé ay jëfam duñu réglé ay jëfam kon lan moo des mooy fexeel a màggal te li ngay màggal nga teg ko ci arjuma yu leer teg ko ci fula teg ko ci fayda bañ koo teg ci ay caaxaan ak ay folklore kon su ko defee màggal ga daal du dara lu dul ñu tànt jullitu yàlla yi dajee fa ñu jël jikko ak melo yu yent yàlla Muhammad melo woon di ko jàngale pour nit ñi seen jikko suufee ñu ne ah comme kii kat mooy suñu idole mooy suñu référence te moom la ñu yàlla joxoñ jikko yu suufee yi naa ko bay te jéem a jikkoo jikkoy sang bi lii rek mooy gàmm firiwul lu dul lii yow mi dem teew ci gàmm gi ren mu leer la ne daaw am na jikko yu suufe yoo amoon ren bi nga ñëwee am nga jikko yu kawe kon mu leer la ne yow mi kat da war a gàmm bu la neexee ak bu la naqadi waaye yow mi ñëw teew ci gàmm gi mu leer la ne daaw amoon nga jikko yu xaw a kawe ren da ngaa gën a suufe yow de waroo gàmm ñëpp bu ñu gàmm yi de waroo gàmm ndax gàmm moom da lay jëlee ci jikko yu suufe da lay yóbbu ci jikko yu kawe su ko defee lii daal mooy njëriñu gàmm Seex Ahmadu Bamba nee na daal ku màggal guddi gi yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna keroog yowmal xiyaam ñi yàlla di la yow doo ci bokk te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu laajee suñu ndey Aïcha lan moo doon jikko yonent yàlla Muhammad daf ne jikko yonent yàlla Muhammad daan mooy alquranul karim waaw segam alquran gii ku ko teddal yàlla teral la ko màggal yàlla màggal la ku ko mokkal sax dañ lay fonk yaay doon njiit waaye ki yàlla wàccee ci moom alquran jëmmu jooj nan lañ ko war a def ñun segam alquran la ñuy teral di ko màggal di ko yëgati muy lépp gën a tedd lépp waaye jëmm ji nga xam ne moom la alquran wàcc mu yonent yàlla Muhammad jëmm jooju nan lañ ko war a def guddi gu mu gënee àdduna bu delsee ñu ne dañ koy tàntal kat gàmm fàttali ko jikkoom fàttali ko jaar-jaaram fàttali ko melokaanam fàttali ko ay aw saafam su ko defee yu benn bu ci nekk nit ki war ko caa roy war a xeex ak boppam ci ay jikkoom ci ay melokaanam ci doye di ci moom mu mu mu mu euh, réglé waat ko tegwaat ci yoon lii kay bu daganul lan mooy dagan Cheikh Ahmadou Bamba mu ni fa man yuaddimu mawlida xayril baraaye ahmada faka shahidi shahidal badra bi xayri wahim guddi gu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane aduna Cheikh Ahmadou Bamba nee na ku ko màggal am nga yoolu ku teewee woon xare Badar xanaa xanaa suñu mbokk ci kalmaan yi bu ñu déggatee lii xanaa gën a gën a gën a gën a gën a gën a merati Cheikh Ahmadou Bamba nee ku màggal guddi gu sang bi sallallahu alayhi wa sallam gane aduna nee na am nga yoolu ku teew xare badar dañuy dinga rek dañuy weddi rek nañ weddi xam nga li gën a yées ci àdduna mooy di sangu absence tiim la nga dem ba xëbal commencé njàmpe sa yaram robinet coupé gis nga foofu foofu lu garaaw moo fay am mooy ñii diingat dañoo amul niveau bu kawe te danoo amul xam-xam bu matale bala ngaa widd day fekk sa aliwu bënn waaye yow mi feregul alphabet arab bi ne dangay ngay diingat koo xamante ne koo xamante ne yàlla ko defal tawfiix kooku dangay dangay sonal sa bopp rek da ngay sa bopp rek mag ñi nag dañoo teeloon a xam si jubluwaay teeloon a xam yëf fan la nekk teeloon a xam ne kenn rek la yàlla bind teralee ko boppam ki bëgg sa digganteeg sa borom jekk fenn ngay jaaree mu yonent yàlla Muhammad moo tax ñu jël seen mbir yëpp jooyal ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu anhu daf ko wax nee na mboolem buntu bu nit di jaar mën a am ngërëmal yàlla moo doon nee na porte boobu fëgg naa ko waaye bu ma demee ba yëg na yëf yi fenn rek la nekk ci laa jël sama yaakaar def ko fenn foofu muy bëgg yonent yàlla Muhammad wa laysa li amalun alqaaka yaa amal siwal mahabati mbooleem jëf rek mën na la dugal ci yërmande yàlla ji wala ngërmandeeg yàlla gi waaye jëf ya bu ca gën a gaaw gën ca efficace mooy fexe ba bëgg yént yàlla muhammad kooku nag du ay pexe de mbokk yi du ay pexe waaye tawfiqu yàlla la tawfiqul ilahi la moo tax cheikh saadu abihi dafa mu ne yaa laytani kunta turaaban alayhi wa laytahu akramani bi waslihi yelantu ko woon man Cheikh Saadu Abihi sët la ci yonent yàlla Muhammad mu ne yelantu ko woon man Cheikh Saadu Abihi ma nekk pënd dàllu yenenti yàlla Muhammad kii sët la ci yonent yàlla Muhammad kii bu xamutoon dayoog yonent yàlla Muhammad dana wax wax ji nee na yelantu ko woon ma nekk pënd dàllu yonent yàlla Muhammad kon su ko defee màggal ko daal lu war la màggal ko lu jaadu la waaye nag ñu ngi biir mboolem jullit ak foo mën a jógee pour màggal yonent yàlla Muhammad moo xam Tiwaawoon ko koy màggalee moo xam tuubaa nga koy màggali moo xam beneen barab bu mu mën a doon nga ko fay màggali ji mbokk yi fasal ci sa biir xol te yàlla rek tax laa jug yeneen ti yëg tax laa jóg te bul dem ngir soloog summi bul dem ngir falkuloor bul dem ngir sinap bul dem ngir lekk bul dem ngir leneen déedéet demal ngir màggal yeneen ti yàlla Muhammad ngel la bu waxtu julli jotee bu ko fàtt ngel la salaatu ak loo mën dee ko xaddi yàlla Muhammad ngel la bu fa sol loo xamante ne sa cër day feeñ. ngela bu fa def lu doyee di bu fa def lu xeebu bu fa def loo xamante ne da nga dem da nga doon dem di sàkku tiyaabo mais da ngay mujj sax amee fa bàkkaar kon su ko defee fa tabarakallahu lii lañ doon jàllale comme message di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu sutura defal ñu tawfiq yokk suñu cofeel ci yént yàlla muhammad gàmmu gi yegg jàmm te kenn bañ a manqué incha allahu rabbi lépp luñ cay càkku yàlla yombalal ñu ko bi jaay di wujudi sallallahu alayhi wa sallam in uridu ila al-islaha ma stata'tu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi al-unib wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu